maaleykum seen internet 28 euh, pro ñoo leen di di leen ziar yéen a ngi ànd ak seen mbokk Ndeye Fama Mbengue tey nag ñu bëggoon a ànd ak yéen waxtaan ak askan wi si coppite bi nga xam ne ministre de l'intérieur indi na ko si mesure barrière yi mu joxe teg si tamit bëgg a waxtaanee tamit marché bi nga xam ne bi ñu leen di toxalee yóbbu leen fële yàgg na lool mais boobu léegi amuñ si lenn loo xam ne suivi la ñu ngi xool nag kañ lañ war a ñëw ak kañ ñu ngi ànd yéen ànd ak suñu man Cheikh Bey ñu doxtaan ak askan Mbàkke laaj leen seen seen xalaat. waaw loolu de li ma moom mooy ñoom booy askan wi dañ dañ dañoo xamatul fu ñuy fu teg seen tànk daal. ci yëf yi ndax dëgg la yàlla dogal la waaye danoo nekk ci état république am ay njiit dénk leen suñ bopp. tam loolu di responsabilité bu mag a mag a mag a mag boo xam ne yëmut ci àddina kese ëllëg yàlla dañu koy laaj. mu yomb na doxoo ku lu unaasin bi yi kenn ku ne ab sàmm nga te yàlla nee na dinaa la laaj loo ma la joxoon noo ko sàmmee boobu ba léegi gis nga ma dañoo daje gis nga masque bii ma takk ñi ngi def lu man ñun askan wi waaye askan wi moom ñoo dem ba sonn pare ñi ñu jiite en fait li sëñ euh, Babacar Sy wax am moo ci am ñun li ñuy wax mënuñu ko comprendre parce que dafa mel na dafa am lu ci leerul daal. lan moo si parce que feebar bi boo xoolee bi mu tàmbalee ba léegi. bu teyee ñu ne la lii bu subaa ñu ne la lii boo xool tey defoon nañ ci euh, état d'urgence jël fi ay mesures na lii la ñuy def pour maanaam mbas mi jóge fi boo xool bi ko defee dafa mel ni affaire bi dafa yokk ba ci des ñoom ci seen bopp ñu wëlbatikuwaat dindiwaat loolu doxalaat quelque temps tabaski bi jàll ñu ne gis nañ ne affaire bi dafa yokk waat daal di defaat te gëm naan ne ëllëg noonu lañ koy teggee. te yow noo daal li ma gis ak cuune daal laa gis man waaw ŋàññu ma leen nag. def na leen man sax duma ma wax sax cuune waaye def na leen man mais damaa gis ne li sëñ Mbaye si Mansour wax mooy dëgg ñoom mënuñ ci dara waaw mënuñ ci dara yàlla moo ko wàccee na askan wi kenn ko ne jël say matuwaay la ci des ñu dénk ko yàlla ba pare nag bàyyi nit ñi ñuy liggéey parce que gis nga xiif bi ak mar gi mooy corona bi gën a rëy waaw xiif bi ak mar bi ci ay gor ñoo xam ne mënuñoo yalwaani mënuñoo sàcc mënuñoo def lu neexul yàlla lépp tëju mënatuñoo am luñ lekk seen kër yi loolu moo gën a rëy ci man coronavirus. loolu ñun ñëpp lay aar waaye yaakaar naa wergu yaram moom ñun ñëpp lay aar ñu ngi ci kontaan bu baax a baax xanaa nit ñi gën cee jàpp rek parce que buñ ci jàppul du fi gaaw a jóge waaw noonu la dem. waaw ñu xool ne diggante Touba Mbacke gars yi ni ñuy takkee masque yi xaaj bi duñ ko takk normal. waaw loolu de xam nga rek euh, ngém-ngému nit ñi moo des parce que tey ñu bari tey man jàpp naa ne Sëñ Muntaxa bu takkee maska yaakaar naa ñëpp war nañoo takk maska ndaxte fi ñu ko teg mooy Touba moom moom boppam Touba nangam nangam bu ko defee duñ nangoo sukkandiku ci mbirum nguur gi daal mais ki jiite Touba comme moom nangu na yaakaar naa ko topp ndigal nga topp ci ginnaawam. dëgg la dëgg. waaw. sëñ bi ñoo ngi lay waaw waaw. ñu fekk la fii sa place nga toog say xarit di waxtaan. ñu gis ne ministre bi génnaan na wax yeneen joxe yeneen coppite si mesure yi mu joxe woon ñu lay laaj sa xalaat si mesure yi mu joxe boo xool moom am na solo trop. ndaxte maa ngi dégg mu ne xale yi ñoo koy jël indi ko ci kër yi kooku mag ñi demuñu suñu dikkee di leen wàll kon xale yi mën nañoo war a mën a éviter bu baax di takk po takk masque yi ndax suñu dikkee fekk mag ñi ci kër yi du leen mën a wàll daal noonu daal la gisee. ñu gis na diggante Touba Mbacke dañ fay gis benn bàyyeeku. gars yi mën nañ ne ko ni ñu ko war a respecté yow lan nga si doon sànni benn message boo xam ne di nga ko jox ndaw ñi yow en tant que jeune boo xam ne yaa ngi engagé sa dëkk. waaw ma ciy wax mooy ñu respecté masque yi rek ndaxte comme que ñoom ñooy dem di ko yóbbul di ko wàllu mag ñi ndax boo xool temps yi mag ñi gaañu bari nañ trop te ñoom bi ñu xoolee situation yi noonu la fa demee kon jeunesse moom nañ ci góorgóorlu bu baax daal ci masque yi loolu la. ñoo ngi lay sant